nag képp koo xam ne yaa ngi foofu noonu ci FDM Faye di bëggee ñoom Ndiaye fàttewuma si jànxay yëpp nekk foofu noonu ak baabu mi nga xam ne nag suma caamen bu baax bi waaye ni ma def rek mooy dama ànda yéen biir waañ bi di jégalu nag ci tardement bi waaye suñ delsee rek dinaa wax naa leen ko yéen di ngeen ko yënga ñun itam ñu di ko yënga ne leen dem si biir waañ bi suñ mbokk yi ni ma leen ko waxee ndax wax naa ne ne léegi dama surprise li nga xam ne ni mooy artistes yu jigéen yi bugg a dugg seen biir kër yi seet nañ ñoom itamit seen salañ salañ ci biir waañ bi naka lañ koo defee tey nag dafa am ci benn kër artiste bu ma ñëw muy kan ñu ne ndey caam waaye na ni maa def mooy damaa dugga seet ko ci biir kër gi àndaa moom yóbbu ko ci marché bi ma seet na tey lan la ñu war a toogal ci biir bakku bi toppam su woon ah baree àndaa yow ci biir marché bi seet na yow itam mbokk bi am nga ko paree doxalee xanaa ngeen bañ ñu bañ de xanaa ngeen bañ kon nañ dugal na am <laughs> ma leen ko si biir këram dax naa leen léegi léegi ñu ñu ci ci biir këram loolu tam daf ñoo may doole trop waaye nag kii dañ ko namoon lool ñu gëjoon koo gis tey ndey ñu ñëw seet si la waa bakku bi ñu bëggoon na yow ànd ak yow marché seet na tey rek nga defee sa ay façon kontaan si yow waaw li ngeen di def foo mu di dem si àddina si maa ngi ko seetaan di ko seetaan France Italie Angleterre waxi noppi waaw ma kontaan si yéen doon si na GRTS waaw kon soo la ñëwee toog ne man ngeen seet si tey waaw dañoo def ba mu toog lan la lan la ñu paree toogal tey loolu kenn toog lu kenn toogul bu kenn toogul laay def fin bu bees fin nañ àndaa yow na gars yi pare pare nañ jàkkaarloo <laughs> Wow, wow, ya, wow lay bind. wow pour suñ cuy bu wow bu am si wow bi waaw. bii mooy kóob bi waaw gis nga bi ñu ko jëlee léegi moom wow ko war si machine bi parce mhm. que dafa wow yàq. waaw bu ma ko buggee wow fii war Wow, Wow, bi. wow mooy kóob bi. waaw fële wow wow, ba pare yëpp wow wow waaw.

bien si cubi la tamaate doom ak am solo kër si gaa boobu moom ma si jaaxale xanaa ndaw percé amatul nag. waaw xarala yaa ngi am na ci solo. baax si bët dëgg ko dee. waaw baax si wér gu yaram. waaw. suñu pepa waaw suñu a jox lekk mu ak toofa nga ñàmbi gi. <laughs> géej ak yàngoo de géej a dàngoo balaa nee saxee maa la wax lii. waaw géej a dàngoo. toog jën nag dafa am am solo géej si am solo. supame baangu. supame bi it am na si solo waaw. Mm-hmm. waaw sipa sipa gaangu. waaw. Mhm. waaw sipa sipa bi nañ ko gën a génnee ak sax. Mhm. pour ngeen gis ko. waaw bi tam sipa sipa baa ngoog waaw. Mhm. waaw bi tam sipa sipa bi la. tomate doom bi wane ni ko diwlin bi am na ci solo. waaw ñu daal di ko tegee nii. waaw diwlin baa ngoog. laurier gi ah, am solo si kaw waaw. muy yàpp muy jëm na. waaw laurier bi am na solo trop tomate doom bi. waaw tomate waaw. kaani sew baa ngi nii waaw. maam laaj baa ngi nii. waaw ak a am solo si togg. waaw laaj moom si togg soo ko defee fukki doom sax baax. waaw laaj ku xamoon li moo def. waaw li ko jël ñaari doom yi. waaw laaj bi am na si solo. Mhm. poobari mm-hmm. doom bi poobari doom bi it am na ci solo ndey. Mm-hmm. Eh, ci suñ programme yi bokk bi gis ngeen tey li nga xam ne moom la Ndeye Thiam def foog naa leen artiste suy def rek dafa dal di def rek bam bam bam bam neex tey nag dañ ko bàyyi ci waañ bi mu ne lan la ñu toogal mu ne tey daf ñu toogal li nga xam ne ni mooy cubi bu lekk bu bokkul façon boo xam ne dañoo jël ci fasifa bi boole ko ci mu nekk lu am solo waaye sas nekk li maa def leen dama leen a bàyyee Ndeye Thiam ci biir waañ bi suñ fi del seere seen xarit dama am dég ñu dal di ràcca teg bàyyi ko nag ci biir waañ bi